2014 garçon comme fille jigéen ñi ñu ngi toll ci limu 73 formation la bu metti woon lool ci ñoom ndaxte bu ñuy ñëw fii ay civil lañ woon xamuñu woon lu bëri ci privation maanaam euh, xat-xat yi ñu leen di teg jafe-jafe yeeg ah coono yi xamuñu ko bi ñu ñëwee fii dañoo def benn rupture. maanaam li nga tàmmoon sa kër doo ko am fii tey ñu forcer leen ci imposer leen ko ñu daal di def ba ci 4 mois jeexee. Euh, jigéen comme góor ñi ngeen fi gis ñi tey ñëpp ñu taxaw donc ñoom wane nañ ni mérité nañu nekk ay militaire ndax muñ nañ ko euh, jublu nañ ci def nañ ko ni mu waree ba li leen doon laaj ci ci ci capacité yëpp wane nañ ko donc looloo tax tey ñun am nañ kontaante bu mag euh, di di leen félicité tamit di remercier seen parents yi donc yenn encourager pour ñu ñëw rejoindre métier bi donc moo tax loolu dafa ne si liñ leen di njëkk a ñaax ñu am yar déggal seen kilifa waaye aussi itam fonk seen morom bu discipline bi weesoo na am loyauté loyauté donc envers seen population ak seen institution donc bu ñu amee lu ñu sekk ak seen i seen i seen i seen askan donc bu leen di war waaw nañ fonk seen kàddu fonk seen liggéey gën a góorgóorlu donc conscience professionnelle bi aussi tamit euh, dool delluwoon naa ci mu nekk loo xamante ni bépp kër liggéeykaay donc da ko war a am parce que ñaari mbir